ndax weer wi bu amee juróom-ñetti fan am na luñ ci daan def jëmale ko ci jigéen daanañ ci def sax cay jamono quinzaine de la femme waaw daanañ ko ci def tabarakallahu nu bëgg a waxtaane jigéen waaye tàmbalee ko ci ndokkeel sunu maam jële ca poroxaan sunu maam jële ca poroxaan ñu tàmbalee waxtaan wi ci ndokkeel ko tàmbalee waxtaan wi ci sargal ko waaw tàmbalee waxtaan wi ci joxoñ ko jigéen ñi pour ñu roy ko ndax dafa tombe te itam di lu am solo te itam di taxawaay yoo xam ne sunu borom ku bëgg ku taxaw la alxuraan dafa nettali ñaari jigéen ñaari jigéen ñoo xam ne nettali na xëy na yeneen jigéen waaye ñoom ñaar dañ ci ràññiku kenn ki tudd na aw turam muy Mariama kenn ki tuddul aw turam muy malikatu saba la reine saba am na yeneen jigéen nag yu mu nettali seeni nettali lu mel ni jigéen ja woon ca misra digganteem ak yusuf buur ba alxuraan jox wàccuwaay bu am solo boobu jigéen jël aw saar tudde leen ko ñoom ñépp jëlaat weneen saar tudde ko seen présidentu mbootaay waaw aw saar ko ñoom ñépp suratu waaye jël wenn saar ci biir alxuraan tudde ko seen présidentu mbootaay muy Maryama ba noppi ne sunu boroom nangu ne ne sunu yonente ba nangu ko tudd yooyu jigéen ak seeni taxawaay ak yeneen jigéen ñum tudd ci alxuraan wala tudd leen waaye joxañ na bañ xam ne diw lay wax bu nu tollee ci jamono ji wara a waxtaane jigéen angle bi ñu koy jële nag mooy jigéen ji nga xam ne moom la sunu borom tudd ca nam la ay taxawaayam dafa bokk ci taxawaayu defar pénc mi te daf nu jege ndax pénc mi politik dafee am te taxawaayu jigéen ji ñu bëgg waxtaane màcc ci politik muy ñaari xaaj kenn ñenn ñi dañoo nekk ci toog ci fauteuil bi ñenn ñi bëgg toog ci fauteuil bi te boo ja jax eh, boo jalañee ki toog mu jaaxaan ñu ne du démocratie waaw li muy def mooy waxtaan ak moom waxtaan ak xeet wi ba ñu ne kii ci chaise bi jógal kii toog loolu mooy élection yaag it aju yépp tabarkal eh, fii ci saar wii di sorotu anam la doonte nun sunum pénc bu nu waxee rek ñu ne nous sommes ba mujj yàgg li lay laïcité bi di firi dafa mel ni mooy kon yàlla bokk ci ndax boo yëkkatee yu mel noonu rek ñu ne la nous sommes moo tax fan yi bi nu gisee ci whatsapp bi le gendarme di def bayaanam bu am solo boobu tabarkalla nun ñëpp a xam ceet ay wàjji tabarkalla te yooyu buñ ci dellu woon ci la ñuy mën a rawee ñi ñu raw wala ñi ñu tollool ndax su boobaa da am lu ñu amut imaam al-Ghazali al imaam al-Ghazali dafa bind ñaari xeeti xam-xam benn bi nazariyaatam la benn bi ixyaa am la nazariyaat yi lim ci def moo gën a yàgg lim def ci ixyaa nazariyaat yi mooy ni mu gisee àdduna ixyaa mooy xam-xam yee mu bàyyi woon na ko dundalaat fii na ko tuubal waaye daa wax ne ba mu nekkee fële di dox dox na fa dox bu yàgg boo xam ne bi mu dogee yoon wi bu ko teeloon na dog dox bi gën a gaaw mu gën a sori noon nag sunu boroom daf noo wàcceeloon coono yu bari waaw gaareel nu bis bi tabaarakallah safoor bi ñëw gasoil bi doy bis buñ climatisé chauffeur bi taal ne fu ngeen jëm ñu ne barab sàngam ñu ne yéeg leen ñu ne ko ñuy xaar waaw nun suñu diggante ak alxuraan noonu la mu ngi ci sunu kër yi mu ngi ci armoire yi mi ngi ci oto yi tabarkàlla mi ngi ci dëj yi ah mi ngi ci fépp waaye rek dóor mu daanu surtout Naml dafa jàngale xeetu defar peñ ci façon boo xam ne ba ko joxoon oustaz Mokhtar Kebe yàlla na ko yàlla gën a sàmm ba la ko firiñ fànceelee rekk tabarkalla sa yaram daw mu tax bu ñol ñol ji bëree ci penc mi ñu toll ci weeru la femme hmm? indi loolu day am solo waaw yàlla bi mu nu nettilee taxawaayu Muusa daal ñuy nettali taxawaayu Daawuda daal ñuy nettali taxawaayu doom ja Suleymaan waaw daal dañuy nettali Suleymaan ak doole ja daal dañuy nettali digganteem ak xorondoom gaag ya ca xew daf ñu nettali nag digganteem ak picc ma foofu la wax ji nekk foofu la wax ji nekk sunu borom di nu nettali xissa boobu man mii di wax ak yéen ñiy déglu ba demee ca saar wa muy annam la ci aaya vingt boo yoree waaye xafs daf ko tàmbalee ci wata faqada at tayr foofu la ko tàmbalee tafaqudu tayr mooy suleymaan dafa jabootoon junuuduhu dafa làmboon minal insi xawma minal jinni wal insi wa tayr waaw suleymaan dafa yilifoon ay jinne ay soldaar yi jinne yilif soldaar nit yilif ay soldaar picc wala njanaaw lépp lu am dunq ginnaaw moo leen yilif ñoom ñëpp dafay def li ñu tuddee tafaqud professeur mooy xëy tey dafay dafay xëy fu jëm ca picc ya la jëm dafa def benn tournée ma nga jëm ca picc ya waaw allahu akbar mbaa picc yi amuñu problème mbaa xiifuñu ndax picc yi seen soxna yaa ngi góorlu <laughs> ndax njaboot gi nàngam lisaan hmm? mu xëy rekk dem ci picc yi tournée bi tey ci picc yi la ko def foofu looloo jur campagne professeur loolu moo jur campagne waaw campagne mooy dem ci nit ñi def tafaqud mooy lu ñu soxla lu ñu am lan moo fi doyut loolal nu ñuy def ba doy lan moo agsi wut nu ñuy def ba mu agsi loolu mooy campagne waaw loolu mooy campagne Senghor daana ko def ba àgg doo dégg làmmiñ wa wax baat bu penc mi rafet luwul mukk waaw baat bu penc mi rafet luwul mukk daawu ko dégg waaw il est pédagogue waaye doo dégg mukk mu campagne wax kàddu guy blessé waaw tabarkalla kon Suleymaan mi ngi campagne dem na ci picc ya léegi nag li muy tekki waaw ku dem ca picc ya euh, nit ña waxi noppi ku dem ca nit ña jinne yi waxa noppi mu war a xam li picc yi bëgg li nit ñi bëgg li jinne yi bëgg waaw looloo ko tax a jóg ndax loolu dina tax nga xam picc yi dina tax nga xam nit ñi dina tax nga xam jinne yi ñaata nit ñoo dëkk Sénégal Sénégal te jàpp ne Dakar ay Sénégal kenn xam nu mu kenn xam nu mu toll sunu jàngalekat ba Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy waxoon na lu mel noonu nee waa ji daa nekk Dakar di coow senegal neexut di wax rekk nee ba benn bés rek mu takk ay bagaasam dem xombal toog pour moom xombal gi bokk ci Sénégal waaw njàngale mu doy waar la suñu Cheikh jàngale moom foofu te am solo seeti googu muy seeti a tayr mbokk yi campagne bi tàmbali ci Souleymane mu tàmbalee ko ci picc ya waaw mooy seen kilifa nag parce que mooy président de la république waaw bi mu ñëwee ah gis na maam suub am picc la waaw gis na petax gis na petaxu mareem <laughs> gis na petaxu mbond waaw gis na petax bi mi tudd Paul waaw petax yépp tabarkal waaw gis na ñoom cokkeer gis na ñoom naat fu mu ci dem rek waxtaan ak ñoom tabarkal la wax leen ne campagne bi nangam ki nangam fu mu ci dem rek wax leen waaye nag wër na wër bay bëgg pare am na picc mum gisul mooy alhudhud al alhudhud ah mu ne waaw moom moo ko seetluwut wala dafay nekkut am kaana min al ghaibina moroom bi picc mi ne ko waaw kaana min bii na il est absent ah tàgguwu leen ñu ne ko déedéet tàgguwunu de kon amul ordre de mission te dem na te ci njaboot gi la bokk ci njaboot gi la bokk dem na te amul ordre de maa ngi bëgg a nettali jigéen ci pénc mi ak taxawaayam maa ngi koy jële ci alquranul karim mi ñu nettali jenn jigéen ju taxawaayam ci pénc am solo waaw xissa bi foofu la jëm waaw yàlla introduire ko fa mu tàmbalee te mooy Suleymaan sol aw dàllam dem ci picc yi di la nemmiku am na picc mu fa nekkut te ba muy dem tàggoowut amul ordre de mission je pense que nu lañ ko waxee professeur ji bi chef de l'état ba Souleymane Souleymane daal di bëgg ko teg ay sanctions parce kii dafa def lu defuwut waaw kii dafa def lu defuwut xoolal penc mi li fi xew tey rendi nañ xale rendi tëddi nañ xale ba rendi nañ ko daggate ko sol ci saako diw jàpp nañ ko ba nga ak juróomi xale yu muy yóbbu xoolal loolu cim penc hmm? mooy mooy lu normalut nun nag sunum penc lépp lu fi xew ci yu mel nii waxoon nag ko suñ mbàkk si la lu gën a pire mi ngi ñëw mu ne ma ah ma ne ko waaw sunu borom dafa wax li fi jëleg rey waaw nu amoon ko rey gi néew lool ñu ne ko tebbet sànni fële rey gi takkaar naase mooy lan am na façon reyin woo xam ne alxuraan nee na ku ko rey bu ngeen ko reyut tooñ ngeen ma bu ngeen ko reyut rey ngeen penc mi yépp waaw wallaay ndeysaan kooku même buñ ko reyut bu xam bu yaakaaroon ne bu reyee dañ koy rey sax du rey waaye nun nee nañu dañu civilisé nan dindi ku rey nu rey la atte bi ci boppam nañ ko dind ci suñu constitution bi teg ko fële léegi ku reyati kenn du la rey dañ la def euh, perpétuer xawma tabarkàlla tëj la sa giirug dund loolu ragalu ko nit ragalut loolu tëj la sa ngiirug dund nit ragalu ko ki bind nit nee na nit ragalut loolu alaa ya'lam man ki bind nit nee na nit ko tëj ngirum dundam waaw nit lim ragal mooy ku ko rey loolu la nit ragal alxuraan nag mi ngi ni nu tiim ku fi génn àdduna ñu jàngal la ko waaye nu nee nañ ko daal alxuraan daal vraiment nag yemal ci suñu dëj yi rek waaw waaye nag bul ñëw assemblée bul ñëw ci penc mi nan dem nan dem moo tax keroog ba sëriñ Cheikh na nañ sang réew mi ñu naa ah, kii rek tubaarkàlla seetal lool mu wax ni buñ sangut réew mi réew mi dana sangu sëriñ Cheikh ko waxoon nan sang réew mi bun ko sangut dana sangu te moom buy sangu deret lay sangoo waaw moom nag mën nga tëdd waxoon na ko ba noppi waaw nekkut magum xamoon naa ko ma magum waxoon naa ko la nan ko seetlu rek affaire bii doy na waar mbokk yi lii tuuru ci dara ci pénc bi ndax yëg ngeen ne fukki weer ak benn yiñ fi am juróom ñaari téeméeri nit faatu nañ fi ak juróom fukk ak lu topp ci ay accident sept cent cinquante plus waaw juróom ñaari téeméeri nit ak juróom fukk ak lu topp ñoo faatu ci accident ña ca faatuwul te doxe ca lag gi nga ca faatuwul te doxe ca gi xam naa sapari dañu indi lim bi ña ca faatuwul te doxe ca laggi ndeysaan ak ña ca faatuwul te ñu nga tëdd ca lalu hôpital ba ba fii nu toog seetal loolu léegi nag duñ def benn diagnostic dañuy coow rek nun ñépp di coow rek te duñ jog diagnostique problème yi seet lan moo xew waaw ala kulli xaal Suleymaan xam na ne am na ko absenté te tàggoowut waaw amul ordre mission waaw amul euh, amul passeport service moom daal dem na dem na mu jël décision moom tam def benn note de service moom Souleymane taf ko ci bureau yi yëgle ko jël rajo baak télé bi wax ko ca lu mu wax la wazibanna muy benn aw la xas aw la muy ñaar aw la yatiya muy ñett note de service bi loolu la def danaa ko sanctionné sanction yu métti loolu la wax waaw danaa ko sanctionné sanction yu metti loolu la wax noonu nag sunum penc kenn du fi sanctionné waxuma laa sanction yu metti waaw ñun sunu penc kenn du fi sanctionné yow miy sanctionné yow lañuy ñuy sanctionné Oustaz Ahmed Dame Ndiaye benn jàngalekat la dangeen faral di dégg ma koy cité ci waxtaan yi ndax waxtaan mi day am solo tabarkalla yàlla na ko yàlla gën a sàmm nee na dañuy woote am ndaje léeg-léeg six heures mi sàmmoon teg waxtu nga daal ñëw six heures mooy quart six heures jot kenn ñëwut six heures et quart gaa yi ñëw ñu six heures et demi sept heures mooy gaa yi door a tàmbalee ñëw yow mi njëkk ñëw mooy quart yow la ñuy sanctionné parce que yaay xaar gaa yi yaay xaar gaay sanction yooyu pénc mi suñ ko bokkee nun ñépp ku ci def lu ko yayoo nu nanu téye ci sa loxo ne la lii nga def du noonu waaye déedéet laisser-faire bi day ëpp day ëpp de ndax sàccum gone moom ak rendi gone jàpp nañ ne pénc bi lu mën a fee nekk lu dul loolu waaw waaye da gis koo xam ne kii tibb turu bi mu tibb ci xaalis kenn xamul tollu ñu ne ko soo indee nangam ñu tëjal la gémmiñi gaa yi loola boo amul benn pas-pas bi da ngay fexe indi loola ndax ñu tëjal la gémmiñu gaay yi hmm? ah, la fabal lii nga dem ci ku ñu rob bi sàngam nga ŋaal ko def ko ca walla ko faatu bi sàngam buñ koy sang nga def ko ca walla wala wala wala wala ñu andil ma ca ndox ma des ca ca ngit ma walla walla wala allahu akbar asihru wa Hmm. mbokk yi dugg nañ weeru mars sunu tomb waxtaan mi ngi jëm ci waxtaani jigéen ñu jël une femme la reine Saba bëgg ko waxtaanee waaye yàlla dinu introduire waxtaan wi tàmbalee ko ci ki nga xam ne mooy Souleymane nekkoon chef de l'État digganteem ak kii dem te amul nodd ser amul euh, amul ndigal jërë jëf ci ànd beeg si defem seen rajo teg leen seen baaram foofu bu ñu dundee ba lëndi yàlla ñu dund ba lëndi te weesu ko ñu wel waxtaan weeg yéen teggi suñu baaram fi ko tegoon suñu mbokk yi xëy ci xibaar ñu ngi ni taxaw yor seeni kayit bëgg leen na firiñ fàncal xibaar ci tubaab ah firiñ fàncaloon ko ci wolof ñu leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii waaye ak suñu sponsor yi yal na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu